soxna si Anne Françoise Diouf ñu ngi lay nuyu di la dalal. maa ngi lay fay Elisabeth di rafetlu invitation bi Rewmi FM. Mhm. Euh, di nuyu di la sargal ci jour semaine nu mu tudd ci mois de la femme bi parce que mhm. niñ koy waxee le mois de mars est dédié à la femme. Mhm. di la sargal. Euh, di wax ne rek maa ngi tudd Anne Françoise Diouf euh, nekk conseillère municipale à Mbour responsable politique membre de la convergence des cadres républicains responsable communication agence nationale pour les énergies renouvelables. justement bañ a wàcc ci yoon woowule muy weer bi nga tudd moo taxit euh, ñu privilégié soxna yi ci jamono ji rawatina euh, euh, tey yow nga nekk ci domaine politique politique ñu gis ne ñiñ fi daan tudd boobaak léegi ñoom ñoo fi nekk néew na ci ñu ngay gis ay kanam yu bees tey ndax jàpp nga ne coppite mu ngi am. waaw Elisabeth danga may may tuuti ma nuyu département bi ma jógee muy département Mbour. di mm. sargal femmes yi fa nekk parce que c'est un mois de femme. comme niñ koy waxee. Mhm. en l'occurrence femmes yi nga xam ne damay liggéey ak ñoom dans le cadre de mon mouvement mu tudd Mosides mhm. mouvement citoyen pour le développement de Mbour muy ay femmes yu yu jàmbaare. nekk ci transformation produit halieutique yi ak euh, nu mu tuddati euh, transformation fruits et légumes. Mm-hmm. bu ñu ci jógee ci relève boobu nga wax relève bi nga wax euh, c' bien possible parce que li ñu mën a wax rek mooy am nañ ci no politique ay femmes yoo xam ne ñoom dañu marqué quand même la politique au Sénégal et et d' domaines socio-économiques. mën mm-hmm. ñu mën ci jël Adja Caroline Faye bu Mbour nga xam ne moo fi nekk première femme députée à l' Assemblée nationale kooku ñu koy tiitaroo ndax ñun Mbour la ñu dëkk. Mm-hmm. boo jógee ci Adja Caroline Faye mën nañu wàcc ci la première femme première ministre mu nekk euh, Mame Madior Boye mm-hmm. en passant par madame Aminata Touré mm-hmm. tey gis nañ ne Aminata Mbengue Ndiaye moo yor conseil économique et social pour wan la ne la que mm, femme yooyu nekkoon ci terrain bi dañu toll foo xam ne nii war nañu xalaat euh, peut-être renforcer ay yeneen femmes yoo xam ne ñu ngi ci ñu ngi ñu ngi xaw a am génération bu gën a tuuti comme ñoom pour ñu mën a assurer la relève mm-hmm. relève nag nekkul loo xam ne nii da ngay ñëw ne ñi fi toogoon nañu pousse nga jël seen place déedéet mm-hmm. mais ñi fi nekk ñoom ñoo lay accompagner di la former moo tax au temps du PS on avait les universités Euh, d'été li ñuy tuddee les universités d'été amoon na PS mhm. soo xoolee APR ñun am nañ lu ñuy wax la l'école du parti qui est qui est dirigée euh, au passage salut maître Djibril War mhm. mu nekk ay formation yoo xam ne ni dañuy jàngal euh, les militants mhm. la doctrine et l'idéologie même du parti te loolu dañu gis ne aussi ça a beaucoup régressé parce que ya a y a beaucoup qui s'engagent en politique sans pour autant ñu mën a xam nan mooy idéologie wu parti bi donc moo tax bu ñu waxee relève alternance générationnelle dañu gis ne ñoom femmes yooyu ñoom ñoo fi nekkoon yàgg na ñu ngi leen di gis donc dafa jot ñu former yeneen femmes te former nañu sax parce que soo seetluwee ci ci ci langue politique bi di nga gis pas mal de femmes yoo xam ni c'est des femmes cadres mhm. ñuy bay seen waar ci politique euh, am représentativité ci dëkk bi ñu dëkk donc man je peux dire que la relève et assurée il reste juste peut-être coup de pouce pour que ñi nga xam ne ñoo war a assurer le lépp. Mhm. gën a mën a affirmer wu. ñu gën a taxaw daal gëm seen bopp. waaw gën a taxaw gën a affirmer wu. d'accord kon bu ma la déggee tamit mbir mi du ñëw rek brusque ndànk-ndànk rek lay doon ba ngeen àgg ca. waaw ndànk-ndànk la parce que xam nga puusal ma toog amul. <laughs> nit doo ko fekk mu toog nga ne ko puusal ma toog. da ngay naxtaan ak moom muy puus ngay catu di catu ba mu jëjël fi bi noonu lañ koy waxee noonu lañ koy defee encore une fois je le dis la relève c'est trois c'est trois thèmes il faut d'abord l'engagement il faut que nga engagé wu en en politique mm -hmm. il faut se faire former pour connaître l'idéologie du parti mën ko défendre mm-hmm. ba pare soog a mën a prétendre nag relève loolu mm-hmm. mooy man pour man loolu mooy sama gëm-gëm par rapport ak relève bi mm-hmm. mais ñi fi nekk quand même nous avons encore besoin de parce que soxla nañu leen c'est pas pour rien ñuy wax ne quand un vieillard meurt c'est mm-hmm. c'est une bibliothèque qui brûle cela veut dire que mag mat na bàyyi ci biir réew mais ñoom ñooy ñëw xëcc ñi nekk ci suuf pour ñu mën a jëm kaw ñu des ci dynamique boobule wax ci leadership euh, jigéen ñi ci wàllum politique bi tey wax nga ko mm-hmm. gis nañu ne mm-hmm. euh, ñoo ngi ñoo ngi gën di ñeme euh, li nga xam ne moom mooy politique bi ci local yi ñu génn wax nga ko tamit sànq gis nañu ay soxna yu bëri dem nañu laaj baatu askan wi am na ci ñu ci am lañ ca jële euh, tey ndax gis nga ne dëgg-dëgg moom it leadership le moo ngi gën di jël place ci mim réew. waaw leadership bi man je dirais que mi ngi jël place ci ci bu baax ci ci ci dans tous les domaines socio-économiques du pays. Mhm. même bu dul politique kese parce que dañu seetlu ne depuis bi ñu voté la loi sur la parité. Mhm. Euh, ci ci magistère maître. Doulaye Wade mhm. euh, président Macky Sall dafa ñëw def mise en œuvre parce que soo seetluwee bari na femmes mun mu may jox leen ay postes de responsabilité. Mm-hmm. Mm-hmm. te loolu leadership moo leen ko may. ba pas plus que semaine passée gis nañu ko ne DER. Euh, bi mu jël euh, jox ko femme muy abi abi abi sey mm-hmm. démb aussi ci conseil des ministres bi gis nañ ne 3FPT ki mu ko jox jigéen la loolu rek dafay wane ne que euh, jigéen am na cër te ñu ngi koy cëralee leadership féminin boobu am na dafa des il faut ñu gën ñu renforcer parce que tamit li ñuy wax rek euh, am nañu compétence yi am nañu expertise bi li des mooy xanaa comme niñ koy defee ñu wax rek jóg wone ne que góor yi toog jigéen ñi mën nañ fa toog kon man euh, li ma mën a wax mooy leadership féminin euh, et le leadership féminin est en marche li si des rek mooy comme niñ koy waxee président gën ko ñoŋal ak ñeneen ñi gën ko ñoŋal pour jigéen ñi mën a occuper poste responsabilité comme niñ koy defee présentement. te nga jàpp ne lan moo koy gàkkal lan mooy obstacle bi tey. lii obstacle bi mooy des fois euh, manque de générosité daf si am aussi. parce que da ngay gis euh, jigéen mu am engagement nga xam ne kii am na engagement politique. Mm. mais du ñu def tout pour xëcc ko pour au moins mu wane mu éclore quand même euh, potentiel bi nekk ci mm-hmm. moom. Mm-hmm. loolu dafay am beneen chose bi mooy yow Sénégal la nekk comme tout ce jour dans le lobbying. Mm-hmm. des fois aussi dafay am euh, problème de lobbying. am na foo xam ne nii boo amul lobby peut-être doo fa yegg mais tout. en tout état de cause moi je me dis que tout le temps il faut mettre au devant la compétence et l'expertise mm parce que nit bu compétent wee que mu nekk góor ak jigéen bu à diplôme égal moi je préfère ñu jël euh, femme bi parce que au moins moom dinañ ko may won ne ko que euh, kii amatul nu mu tuddati tout ce qui est tout ce qui est amatul waa discrimination bi dañ na loolu dañ ko mhm. koy won mhm. donc moo tax man may wax tout le temps ne que ñu mun leen jàppale jox leen place yu baax yi comme ça ñu mën a liggéey parce que gis nañ ne que li ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey place yi ñu leen di jox poste ñu ngi matériel yi ñu leen fa tegee ñuy waaj ay élection législative génnoon ci yeneen euh, tey euh, ci Benno gis nañ ne euh, yëngu yëngu yi bëri na fu nekk ñoo ngi remobiliser les troupes ndax yéen ca Mbour ga ngeen nekk yéen a ngi taxawee ni ni mel waaw Mbour moom dama lay wax ne la pour remobiliser les troupes moom ñu ngi ci parce que soo seetluwee ñu dañu dem élection locale gagné haut la comme on dit avec la manière mhm. parce que ñun ñoo ñëw euh, en première position après Yewwi Askan Wi avec euh, euh, une, différence de six mille voix donc avec une liste une seule liste la ñu demee donc ñun on n'a pas vécu le syndrome des listes parallèles mm -hmm. donc leneen li mooy xanaa comme niñ koy waxee rek ci coalition boo gis am na ay frustré comme niñ ko comme niñ ko seetluwee partout mhm. moo président Macky euh, délégué ay ay ay commissaires dans les quarante six départements pour ñu jéem a dem waxtaan ak nit yi ñu jéem a andiwaat aussi euh, ñi nga xam ne dañu frustré te di xalaat ne gisuñu seen bopp ci politique bi jéem a taxawaat euh, en vue euh, de faire une seule liste pour les pour les législatives. Mhm. parce que comme je te l'avais dit rek ni ma ko waxa waxee woon les listes parallèles nous ont beaucoup desservi. Mm -hmm. donc lu ñu mën a def pour xeex ko pour ba bañ am liste dina dinañu ko def remobiliser waat nekk benn say euh, dem élection législative gañewaat ko avec la manière comme ni ñu koy defee. ndax département de Mbour. Mhm. Euh, mën nañu wax ne que c'est la troisième ville économique du Sénégal te président Macky à travers le Benno Bokk Yaakaar moo ko gagné mayee euh, nu mu tuddati victoire majoritaire ci local yi noonu la ñu yaakaaree mayaat ko victoire majoritaire ci euh, élection législative artu woon na ci liste parallèle yi ca élection teritorial yi tey mu daal di ci yëkkatiwaat kàddoom ndax jàpp nga ne danañ ko déggal bi léb yoon waaw xalaat naa ko nag xalaat naa ne dinañ ko déggal ndax euh, loo gis bu ñu tegee benn acte rek c'est parce que am na lu xam lu amoon. Ah. je pense que euh, élection yu ñu jógee def nañ ci lecture boo xam ne war nañu mën a xam ne ñu ànd doo ànd moo ñuy dooleel. te xam naa ne li président wax euh, ñun dinañ ko épouser accompagner ko ci maanaam euh, def euh, benn liste pour may ko majorité à l'Assemblée nationale. Mm. donc pour loolu man awma ci xel ñaar. Mm-hmm. parce que ñu ngi ciy liggéey ñu ngi dugg goxot gox di waxtaan ak ñi nga xam ne amoon nañ peut-être lu leen naqari wala peut-être amoon nañu gis-gis boo xam ne dafa wute ak ni ñu gisee woon pour andi leen donc ñun ñu ngi ci au niveau de Mbour ñu ngi liggéey pour remobiliser waat les troupes jàppoo ba pare teg ci xam nga dañu am loi boo xam ne mi ngi sur le parrainage donc instant bi il faut ñu sensibiliser nit ñi pour ñu mën a dem parrainer président Macky Sall du ma ne président Macky Sall sax mais parrainer la liste législative comme ça ñu jox ko majorité à l'Assemblée nationale tey ndax loolu ngeen jàng tey muy xaajaloo gi moo leen euh, yóbboo li leen dal maanaam ba opposition bi taloon na leen ci euh, élection yi ñu génn. waaw man la lecture politique bi ma def ci euh, élection yi passé mooy ya a deux choses qui nous ont desservi. Hmm. c'est les listes parallèles et la désinformation qu'on a eue sur euh, la loi sur la sur l'homosexualité. Hmm. parce que ñëpp gis nañu que ñu bëri opposition bi loolu la ñu campagne loi boobu sur l'homosexualité ak euh, liste parallèle yi nga xam ne même au sein de Benno Bokk Yaakaar on l'a subi hmm. waxuma la ci biti parce que am na ñun am nañ ay victoire yoo xam ne liste parallèle yi ñi ko gagné euh, Benno Bokk Yaakaar la ñu bokk hmm. donc mën nañu ne quand syndrome locale yi wax dëgg neex yàlla war nañ ko saafara ñu ngi ci tànk yi ñu ngi koy mbëbët pour saafara ko pour élection législative yi. mais boo nee tasaaroo gi euh, ñàkk ànd gi ak it euh, loi sur l'homosexualité moo tax ñu bëri euh, maanaam résultat yi ñu gis élection yi ñu wees jàppoon ne également que war ngeen xoolaat feneen ni askan wi dañoo bëgg changement. pourtant waxoon naa ko sànq nee naa ñu bëri. def naa jàngat boo xam ne ñu bari voté nañu list yi sans pour autant xool sax tête de liste ñan ñoo ci nekk. Hmm. li waral loolu mooy euh, gis nga nit dafa bëgg lu dafa bëgg ku ko yëg. Hmm. te population bi ñi nekk ñi di leen jege di leen jàppale ñooñu la ñu votel hmm. boo bëggee sa askan votel la loo laaj mu jox la ko da nga koy jege. gis nañu que ne ñi gën a jege seen population gagné nañu seeni ay mairie. Mm te loolu aussi mën nañu wax ne euh, dafa sooxe ci ci ci ci quelques départements. Mhm. am na ci fum mu fu ñu lor parce que ñu bëri dañ ñuy xasee ne que seeni responsable duñ leen gis tant que élection yi jotul. mais foog naa ne nag euh, ak li jot a am ci local yi ku ci nekk tiire nga ci sa ay conclusion def nga si jàngat ba. bu war a mën a tax nga defarwaat xool ni ngay eh, ni ngay toppatoowee wala xool ni ngay dundee ak population bi ak gox ba nga dëkk. Mhm. ak ñi nga bokkal ñi nga bokkal koñ ba. foog naa ne loolu moom def nañ ci jàngat te ku ci def jàngat foog naa. du loo xam ne nii lu lay lu lay lu lay dalaat lay doon. kon daal euh, mën nañoo jàpp ne législative yi li li leen daal ci local yi bañ leen daal ndax tey opposition oh, oh. ñoo ngi wax ne ñoom euh, ñoo leen gagné ci grande ville yi. waa ñoom loolu la ñuy wax ñoo ñu gañe ci grande ville yi waaye nag dama lay wax ne la ville boo musul a gañe moom boo ko pertee tamit loolu. du du defet je ah, pense bien. waaye défi tamit défi tamit boo <laughs> moom dëgg la waaye nag mm-hmm. boo xoolee lépp lu undumeeri ci ci ci ci ci euh, euh, ci Sénégal. Mm-hmm. foog naa ne Benno Bokk Yaakaar mooy majoritaire bien vrai que am na yoo xam ne perte nañ ko te waroon nañ ko gagné mu gën ñu yokk mais loo gis rek comme ni ma la ko waxee sànq noonu la. Mm-hmm. Euh, dara bu la dalee xëy na di nga ko def de telle sorte que nga saafara ko ba dootu la dalaat. man noonu laa ko gisee. waaw ñu lay jaajëfal bu baax a baax soxna si Anne Françoise Diouf ngay euh, membre de la convergence des cadres républicains di conseillère tamit euh, municipal ca Mbour ñu lay jaajëfal bu baax a baax di la sargal tamit en tant que jigéen ci weeru jigéen ñi.